asalaamaaleykum mbokku internetu Dakar People ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu ñëw seet si kenn koo xamante ne su ma mënal la nekkul ku ñuy présenté fii ci Sénégal muy soxna batu te ñëw fekk ko ci këram ñu fa yéene waxtaan ak moom ci ay ponk yu bari dañ koy bàyyi rek mu nuyoog mbokku internetu Dakar People soxna ñu ngi lay nuyu. waa asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Dakar People maa ngi leen di nuyu di am di leen di kontaan am contentement lool macha allah si ñëw bi di nuyu samay ñaari waajur macha allah bu góor ak bu jigéen. di nuyu sama borom kër di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aaday di nuyu suñu mbokk catholique yi macha allah mm-hmm. di nuyu soppe yëpp macha allah biir réew ak bitim réew macha allah maa ngi nuyu ñëpp. Mm-hmm. comme ni ma la ko waxee tey dañ ko seet si këram fas yéene waxtaan moom ci ponk yu bëri mais dañuy commencé nag ci actualité muy mbir moomu nga xam ne su boobu mën la bëri na coow lool ci dëkk bi fan yi muy diggante Soumboulou ak kii di Abdoulaye Diop Khass ñu bëri jàpp ne dañoo tas ñu bëri tamit jàpp ne tasul dañoo xuloore en tant que tey jigéen loo ñu mën a wax ci loolu tamit. li may njëkk a wax yàlla bu mu tas ndax macha allah sëy moom kenn souhaité wu ko bu tayee takk tas kenn bëgg ko. ku jigéen jigéen bu sañoon macha allah sëy boo am benn bant di nga fa sëy ba dee. waaye diggante jëkkër ak jabar la day am. ndegem bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk te macha allah des fois dañuy mattante maa ngi ñaan ci barke yonent bi nañ delluwaat. Mm. sumbulu yow laay waxal jigéen nga. Mm. jàmbaar nga macha allah borom ful nga. borom fayda nga borom personnalité nga man dama la naw parce que gisuma la nga dugg ci dara ñàkk fayda gisuma nga dugg ci daray manquant kon maa ngi ñaan bu fekkee mën na nekk parce que li ngay deg sa biir néegu sa yow yaa ko xam yaa xam say màttalal bu hmm. fekkee mën nga dem nga defaruwaat ak sa borom kër hmm. macha allah foo demit timit da ngay recommencer à zéro hmm. maa ngi ñaan tamit Ablaye Diop xaas góor la macha allah ni ñuy jigéen ñi maa ngi koy ñaan sama nawle boobu macha allah nit ku baax la nit ku sedd la macha nit ku am am jox nit cër la maa ngi koy ñaan moom timit mu demaat jëli jabaram ndax góor mooy dem jëli soxnaam bu fekkee soxna dafa fay na ko góor ki dem jëli. jàmm lañ leen di ñaanal salaam lañ leen di ñaanal seen sëy bi macha allah yàlla nañ dem ba am at seytaane rek seytaane bu dugg seen diggante yàlla si génn ci barke yonent bi. nañ leen ñaanal ay xale rek lañu ay ñaari xale lañu nañ leen ñaanal yàlla delloo leen te incha allah am naa si njort bu rafet. ci sëy boobu la ñuy desandi ba léegi ndaxte gis na sëy bi nekk na loo xamante ne bari na coow lool ba kii di sumbulu jot cee jàppante ak kooku di xaritam aji maas ndaxte kooku njëkk génn déclaré ne kii di sumbulu seetu ak borom këram déggoo li ma la wax la mbiru seytaane la seytaane fu mu duggul fu mu xajul rek lay dugg. Hmm. sumbulu ak aji maas ay xarit lañu. kon macha allah dafa ne kii dafa loxo ak réeroo rek la nañ toog waxtaan. bu ñu toogee waxtaan rek dinañ juboo macha allah ay xarit lañu ay doomu nday lañu saytaane rek la àdduna amul solo. Mm. nañu nañ nañ xoolaat ànd bi nañu xool démb ñoom ñaar àndoo àdduna jarul dara. Mm. fa la ko réeroo rek la nañ toog waxtaan bu ñu waxtaanee rek solution dina am incha allah. Mm-hmm. Mm. Sénégalais yu bëri taxaw ne Soumboulou daa saraxi kii di xarit ji ndaxte moo ko ne jox naa la autorisation demal nga ne seetuma kii. non man loolu wóoru ma parce que man dama nekk nit koo xam ne damaa màndu. bi ko sumbulu di wax fekkeewu ma ko. bi ko aji mas yoo fekkew ma ko loolu ñoom ñaar la concerné hmm. sumbulu akulaay taalaayam moo mën a xam ndax loolu am na wala amul hmm. aji mas tamit akulaay taalaayam moo war a xam loolu am na wala amul mais man bu ma génnee di wax nii la demee dakaa saraxee xaw ma ci dara parce que acte bi ak fee yi fekkew ko man du wax lu ma fekkewul hmm. te en tant que jigéen soo doon am benn ñaax boo xamante ne di ko ñaax sumbulu lan lay doon mu toog sëy mu toog muñ sëy bi fépp a metti muy ñëpp a métti muñ rek moo fi sës foo dem da ngay muñ macha allah te mu góorgóorlu Soumboulou dafa nekk koo xam ne ñëpp ko estimé. kenn déggoo ko li ma la wax rek gisuñu ko si lu ñàkk fayda. Mm-hmm. gisuñu ko si lu doyadi. gisuñu ko si manka boobu ba tey mu ngi toog sëy sëyam ci sutura. Mm-hmm. demul dikkam. Mm-hmm. demul dikkul kon loolu mu continue commencé woon ngir yàlla ak yonent bi na ko yeggali. na ko yeggali ndax doomam boobu mu am. soxna Badu dañuy ñëw tamit ci beneen point boo xamante ne su ma yëpp mën a la jël na benn empereur ci mim réew mooy fan yi diggante kii di Boury Bathily ak Balla Gaye su yëpp mën naa am na benn problème jël na benn empereur foo taxaw ñu naan ñoom ñaar yi dañoo tàggoo te ku la dégg ni ngay waxee mën na am nekk nga kenn koo xamante ne boobu maanaam même soo leen jegewut tamit seen i say say xarit lañ tamit. non du question jege sax du question jege mais réew bi ci boppam ñoo war a ñaanal nit ñi jàmm. nañ ñaanal Buri Bàccali jàmm nañ ñaanal Balla Gaye jàmm ñoom lan la ñuy yàkkamtee Balla Gaye fase Buri Bàccali lan la. Mm-hmm. lan la ñuy yàkkamtee Buri Bàccali fase bàyyante ak Balla Gaye lan la. Mm-hmm. nañ leen ñaanal macha allah man xaw ma fase nañ xaw ma fase wuñu xamuñu xaw ma ci dara nag. Mm-hmm. waaye maa ngi ñaanal seen sey boobu yàlla na màgget Balla Gaye yow laay waxal Buri Bàccali yow ak moom seen sëy boobu yàlla na màgget ci barke ti bi yàlla bu leen dara tàkkale mm. bu fekkee loolu am na marditaali ñaanu ma ko yàlla demal jëli sa na bu fekkee loolu amul gënal tee buri bàcc li ndax boo amee aaw bu baax danga koy téye. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu nga koy ah laa koy wax Balla sama frère la sama lépp la ci man. Mm. te macha allah nit ku baax la. Mm. boo ko gisee nii vive doo ko gisee ni ci tele bi da nga xam ne bala nit ku baax la. nit ku yërëm jigéen la man mën naa door sama lox ci kam ne Balla Gaye du koy toroxal jigéen. Mm-hmm. man mën naa wax loolu ne Balla Gaye du kuy toroxal jigéen buri bàcc la tamit jàmbaar la ko am full la ko am personnalité la ko diñ la te saykat la nañ leen ñaanal yàlla hmm. cat seexlu leen te seen jaboot gi leen yàlla dénk yàlla nañ toog bañ leen di yóbbu ay màkk mais buñ leen ñaanal ay tas hmm. ak ci actualité dugg mooy Ousmane Sonko gis nga problème boobu nga xam ne su boobu mënaan la su ci nit ñi dina yegg foo xamante foo ko nit ñi foogeewut muy Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñaar ba jot jot ci am benn convocation nga xam ne daa war a wuyu ji le deux. man lu may njëkk waa man soxna Abibatou je suis apolitique. Mm-hmm. man duma Ousmane Sonko duma Macky mm-hmm. waaye damay ñaan réew mi yàlla na fi jàmm am. man de xaw ma tiitul mais man tiit naa. Mm-hmm. xam nga lan moo tax ma tiit damaa njaboot. koo wax ñu ne la soxna Abibatou dama nekk porteur de voix boo xam ne macha allah sénégalais yi dañ ma bëgg. te dañ ma jox bopp. dama njaboot Sénégal ak fépp. kon Sénégal bu naree yëngu rek damay tiit te lii ma gis barke yonent bi bu ci kilifa diine yu gaawul génne def intervention fu affaire yi di jëm du neex li ma gis si seet li ma gis si gént li ma yàlla wan war barke yonent bi xamoo ko tiitul waaye man tiit naa moo tax téye na samay njaboot di ñaan ñëpp ñu téye seen njaboot te ku mun a génn sarax juróom-ñaari musu ndox bu mu def ko buñ ko defee nag kilifa yi jóg ku mel ni sëñ Mountakha macha allah si yii rek la sawar. sëñ Bay si Mansour laayeen yeeg ñëpp nañ génn nañ wàcc nañ ñaan nañ dugal ci néeg Ousmane Sonko ak maki sal wax leen dëgg. Hmm. politique jarul yenn yi. Hmm. politique jarul xiiroo jarul naayoo ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. nañ rafetoo. waaw mu def intervention ndaxte gis nañ dossier boo xamante ne Sèye boobu ma bu muy door def na 14 mois te ñu jëm foo xamante ne Sèye boobu ma naan la Ousmane Sonko xale yëpp taxaw ne Ousmane Sonko même su ne day wuyu ñoom duñ mës a bàyyi seen président di dem di wuyu ji siis. Macky Sall waaw après peut-être ay ñi ko jege mën nañ wax ak moom. ñi ko jege mën nañ wax ak moom mais ku bëgg jàmm la. Macky ku bëgg jàmm la Macky ku bëgg réewam la. Macky ku mën a dof lu ku mën a def lu baax la nañ xaar mën na nekk. Mm-hmm. mën na nekk Ousmane Sonko tamit macha allah mën na dem ba xalaat na lii jaru ko. Mm-hmm. Ousmane Sonko tamit macha allah nit ku baax la. Mm-hmm. boo gisee xar-xaru kanamam ni muy waxee sax xam na ne macha allah nit ku baax la. ñoom ñaar ñëpp mën nañ delluwaat ginnaaw. mën nañ delluwaat ginnaaw xam na lii dara jaru ko àdduna dafa dafa jeex. Mm-hmm. dara jarul xiiroo dara jarul ŋaayoom nañ def seen euh, kii ci diplomatie mm-hmm. jarul mm-hmm. xeex parce que xam nga moo tax ma ne jarul xeex bu ñu demee ba ci urne yi xeex amu fa de carte mooy voté te nañ dem liggéey liggéeyi ndax bientôt élection yi la bu ñu nekkee ci dëkk bi di xuloo di xeex dañuy perte xam nga lan moo tax dañuy perte il est que ñu dem liggéey jéem a convaincre nit ñi man loolu laa gis xeex bi moo gën xuloo bi moo gën xeex bi bu fekkee tamit Ousmane Sonko am na ñu mën a wax ak moom nañ wax ak moom mais man am naa ci yaakaar ne Sonko incha allah dina dem wuy ji si jàmm. Mm. dina dem wuy ji ci salaam. Mm. macha allah am na ci yaakaar. Mm. Mm-hmm. ci langue politique la ñuy desandi fii di président Macky Sall fan yi moom suy mënal la ñii di naan day def troisième mandat ñii di naan Macky du def troisième mandat moom ngi ne tekk tekkaaral waxut ba léegi ñu bëri jàpp ne tamit kii di Macky Sall su déposé troisième candidature am mun naa taal dëkk bi. waaw Macky Sall kilifa la loolu moo ko war nit boo nekkee njiitum réew danga waaye lu ñor nga génn lu ñorul nga génn man bëgguma loolu Macky Sall macha allah faralu ma ko nag. Hmm. damay waxee télé te damaa bëgg bu kenn yóbbu samay wax. Hmm. Macky Sall dafa dal man lii laa bëgg ci njiit. Hmm. boo nekkee njiit da ngay am personnalité te Macky dafa am personnalité dafa am fulla dafa am fayda lu mu nar sax kenn du ko xam. man loolu laa bëgg ci njiit troisième mandat bi moom bis bu ko defee Sénégal dina tax. loolu moom lu am la ndax xale yi macha allah bu ñu xasee ba meer rek mer nañu ñu xasee ba meer rek mer nañu waaye kantaa dina def kantaa du def loolu kenn mënagu ko xam ndax moom dafa ne tekk rek curkam te kilifa noonu lay doxalee. tey en porte de voix bon message ngay lancé kii di président de la république. macha allah mu mu mu mu mu gën a am xolu muñ rek. ndax macha allah boo tee ni ñu koy waxee sax ni ko olof yi di waxee boo buutee bukki xaj mbaaw la. na góor góor lu macha allah liggéeyam rafet na. Mm. ku xam Macky Sall xam ne jàmbaar la. Mm. ku xool Macky Sall xam ne liggéeykat la. Mm. xool Macky Sall xam ne ne macha allah nit ku baax na mais ñu ngi ñaan ci barke yonent bi affaire yi na ko seddal. bu Sénégal naree tàkk moom mu génn waxtaan. wax ak xale yi dalal xale yi dalal mag bi dalal mag yi xam ne yàlla rek koy buur lu yàlla dogal kenn mun ci dara barke Seydina Mohamed. soxna Habibou wax ji rafet na mais dañuy duggaat tamit ci beneen domaine mooy làmb xam nañ ne seen waa kër sa say waa kër xam nga waa kër Balla Gaye moom say nit lañ Sa am benn combat boo xamante da koy bëree diggante moom ak Reug Reug te gis nañ fan yii moom suy ko mënal waa kër Double Less jafe-jafe yi ñu amee ci biir làmb ji en tant que tey porteur de voix loo ñu a wax ci Sa Thiès ak combat boobu diggante moom ak Reug Reug. waa tout d'abord waa kër Double Less ñëpp jafe-jafe. Mm-hmm. te jafe bu ñu am macha allah yàlla na fi yem. maa ngi Balla Gaye tamit maa ngi waxaat si moom toujours dama naan Sakho Elimane Balla Gaye def na lu ne ci làmb mm-hmm. Balla Gaye gaynde la Balla Gaye ku am fula la bala Gaye pertul Balla Gaye macha allah dafa dafa teel a def lu muy def rek. loolu moo ko tax mais na moo tax na takkaat daal i am fullaam am faydaam gumba tax lu na Sénégal bu ñu nekk boo fi nekkee bëgg déglu waxu nit ñi da ngay sonn. saa Thiès tamit maa ngi koy ñaanal combat bii mu jublu yàlla na ko si yàlla jàppale. rëkk rek tamit yàlla na ko si yàlla jàppale ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal lañu. mënoo faree fen mënoo mm-hmm. faree fenn waaye man daal damay ñaan ki la meilleur gagne. dañuy ñëw ci wàllu liggéey bi soxna euh, soxna Abibou ku la xam-xamee la seet xam nga yow moom ci mbirum seet rek nga yëngu nekkul ko xam ne day seet ba pare di ay produit mbaa di defi leneen tey loolu mën wax tamit ci mbirum seet. waaw macha allah soxna Abibou dama nekk nit koo xam ne voyante tout simplement la. Hmm. defuma ñaan munuma ñaan yaakaar naa c'est la unième fois lu bari yoon ma koy wax sama émission. Hmm. du dara damay fàttale rek macha allah pour ñu déggul woon dégg. Hmm. du ma mënoon ñaan def ko. waaye dama nekk nit koo xam ne man duma def lu ma mënul duma wax lu ma mënul dinaa la seetal nag macha allah génn la say sarax waaye mën naa ko dogg ci alquran ne bis bu ma la génnalee samay sarax yow mii di dem di ñaanlu yaay gën a yaay njëkk gis résultat ki ki ki ñaan ki yow mi def sarax mm-hmm. yaay njëkk def résultat ki demoon ñaanlu loolu moom xam naa ko macha allah samay sarax balu fetal la man maay la solution. Hmm. te yow yaay la solution comme ni nga ko waxee léegi yow nag damay dégg ñu bëri dañu daa am ay façon seet yu bëri soxna Abibatu ban seet lay def. waa soxna Abibatu damay seet façon seet bu nekk sëf petaaw petaaw daal laa xam ne duma ko laal ndax macha allah si diine bi la ba pare dafa am kilifa yu bëri yu ma bëgg. <laughs> soxna Abibatu ay kilifa rek ñoo ko bëgg macha allah te kilifa yooyu macha allah dañoo soppul petaaw. Hmm. loolu moo tax duma ko laal ak man tamit soppu ma ko te sama diine moo tax mais façon seet bu nekk dama koy def. Hmm. damay seetee suy ndox. Hmm. damay seetee sama loxo. damay seetee su kurus damay seetee ci suuf bëri na seet yi bëri na macha allah. Mm-hmm. te bu ma la si seetal nga gis si njariñ. Mm-hmm. Mm-hmm. tey en tant que seetkat di jeete seeti ay bëri mais ku dafay naan Sénégal Sénégal daa def si benn guuta boo xamante ne moom si jëm boppam xamul si la nekk en tant que seetkat est-ce que ñooñu ci Sénégal lu am la tamit. Ah, ku nekk ak sa point ku nekk ak li nga gis mais man Sénégal bi ma gis macha allah 2023 bi déggoo li ma la wax man Abibatou dama ci tiit. soxna Abibatu dama ci tiit parce que boo nekkee seetkat yàlla may la ngay gis di nga gis loo xam ne macha allah war nga tiit hmm. waaye dëkk jullit lañu nekk nañ wàcce kaamil ci jàkk yi hmm. nañ yor kurus wax ay astafurlaa hmm. nañ wax ay laa ilaha illallah nañ tudd sallallahu ala muhammad macha allah nañ def ay yaa salaam yu bëri nañ génne ay sara hmm. bis buñ ko defee incha allah lu mu tàng tàng tàng yàlla def ciy def jàmm ndax macha allah maam Alaaji Malik fii la dëkk tëdd Sëriñ Touba macha allah fii la nekk Boukounta Niassane Laayeen nekk yépp kon dëkk bi dëkk bu baax la Sénégal macha allah pays bu baax la. day tàng rek mais yàlla da siy wis ndox bu sedd. Hmm. ñu déggaat tamit am na ay benn feebar boo xamante ne mu ngi waaj a ñëw te feebar bi su ñëwee su boo mën a la si xale jigéen ñi yoo xamante tamit duñ miir muur seen bopp en tant que seet est ce que loolu tamit gis nga ko. maa ah man de gisuma loolu wax dëgg neex yàlla. waaye maari day taali yàlla bu mu egg si hmm. muuraay moom soxlawul xaar ba feebar di waaj a ñëw nga koy def nit ku baax da nga yiw hmm. jullit da yiw jigéen sa bopp warul feeñ ndax ngelaw bari na ngelawu saytaane yi bari na hmm. macha allah Sénégal dangay ree ba tas xale jigéen yi nañu muur seen bopp yi di sol lu jot parce que ngelaw mën na leen dugg te ngay gis ñoo xam ne ñu bari dañuy sëy mënuñoo am doom hmm. ngelaw saytaane moo leen dugg hmm. ñi nga xam ne amaguñu jëkkër ngelaw moo leen di dugg wala ñi nga xam ne macha allah dañoo sëy lu dañoo kii daal nekk di feebar ak crise ngelaw lañ nañ protégé wu hmm. tey ku bëgg jot Sokhna na mbaa ku ko bëgg a gis fan lay ñëw ak lan ban numéro lay woote na waaw sama numéro bi ci baar bi rek benn numéro boobu laa am maa ngi dëkk HLM 3 boulangerie Baye Gaynde macha allah fi ma dëkkoon <laughs> bi ma juddoo ba tey foofu laa dëkk macha allah waaw fii laa lu ñu ne fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa sëyee HLM mm-hmm. laa dëkk HLM laay sëy macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. kon mbokk Sénégal ñoo ko déggandoo képp koo xamante ne bëgg ngaa jot soxna Abibatou jéem a la contacter numéro boobu nga xam mu ngi si en bas d'écran ko HLM dañ mu tàggoog suñu mbokk internet. waa émission bi dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim ñu ngi siy génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaanal ci samay ñaari waajur bu góor bu jigéen ak sama borom kër macha allah di ñaan Sénégal yal na fi jàmm am ci barke yonent bi balaa bu dugg Sénégal ba koy jeexal seen nii yal na ko yàlla jeexal ci barke yonent bi ndax ñun jàmm moo ñu Mm-hmm. te incha allah jàmm rek moo fi am ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. di ñaanal suñu kilifa diine di ñaanal suñu kilifa aaday. Mm-hmm. di ñaanal président Macky Sall di ñaanal Sonko <laughs> ñoom ñëpp maa leen di ñaanal. président Macky maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko salaam defal ko sutura. yéen bi yàlla na ko yàlla wayafal Sonko tamit maa ngi koy ñaanal jàmm. ñaanal ko salaam macha allah lépp lu mu bëgg xale la il jeune macha allah Sonko xale la te macha allah liggéeykat la ku am fulla ut tamit bu gënee si moom yàlla na ko yàlla def Macky Sall tamit lu muy ut bu nee si ñoom yàlla na ko yàlla def en en tout cas am nañu président yee wala wala euh, njaago ñun wala ñak sax nañ may waal nag ñun ñëpp ay ñoom ñëpp doomi Sénégal lañ que le ku ci tudd rek yàlla na ko yàlla def. Hmm. Hmm.